leeral ci loolu parce que soo xoolee au Sénégal par rapport au libertés et droits des citoyens euh, Amnesty International mu ngi en mu ngi mu ngi xeex pour euh, Sénégal ñu voté loi bi nga xamante ne day protéger les lanceurs d'alerte mm-hmm. lanceurs d'alerte yi euh, journaliste bi ci la bokk journaliste rek liggéeyam rek cest à moom lanceur d'alerte la euh, muy avocat muy activiste lu ñu naan activiste ñoom ñëpp c'est les lanceurs d'alerte soo gisee ñu bëgg ñu créer wala ñu voté loi bu mel mais loolu wóor na c'est pour les protéger loolu wóor na j'ai pas compris ma ne ndax nga ñu créer benn loi boo xamante ne lanceur dana ku nekk journaliste ku nekkul journaliste am avocat enseignant ñëpp mën nañ si dugg loolu wóor xam nga lu tax parce que euh, réew bi dañ toll fi nga xamante ni lu ñuy woote mooy transparence transparence te citoyen bu nekk am na droit xam nu réew mi di doxee donc am na ñi nga xamante ni yoon nañ ay jumtuwaay wala formation bi nga xamante ni eh war nañu mën Euh, at xam addu si loolu war nañu mën liggéey si domaine boobu. Mm-hmm. ba gindi wala informé population bi. mais mais la la question elle est intéressante mais yaakaaruloo ni par yaa ngi wax lanceur d'alerte yaakaaruloo ni su fekkee duñu duñu voté benn loi boo xamante ni c'est pour les lanceurs d'alerte mooy par exemple ku nekk journaliste enseignant avocat euh, je sais pas professeur de médecine bu fekkee ne da nga gis noo xamante ni dëkk bi mu ngi koy doxee nga génnee ko wax. xam nga le jour le journaliste source yi moo koy protégé par exemple moi je protège loolu da koy protégé mais ñeneen ñi amuñu loolu par exemple est-ce que ñooñu am nañ lucidité pour pour pour wax ne bu fekkee da nga génne yenn information yi man je donne pas mes sources pour jéem tooyal kaneen ki je sais pas si ce que je dis. je comprends parfaitement. est-ce loolu nekkul risque. pour ñeneen ñi nga xamante ne day permettre à ñëpp ku gis benn information bu guy que soit mu nekk mën na toucher à la sécurité nationale et tout nga génne ko te loolu gis nañ ne États-Unis ñu ko doon def par exemple Snow euh, Edward Snowden dañ ko jàpp si loolu mu dem laaxatu di faneen am na benn australien boo xamante ne mu ngi Angleterre aussi tamit dañ ko euh, comment il s'appelle euh, le journaliste wiki de Wikileaks ah euh, Assange par exemple ñoom ñooñu dañ leen jàpp ci loolu Julian Assange par exemple y en a plein yu nga xamante ne c'est comme ça loolu leen jàpp est-ce loolu nekkul nekkul risque ba nga xam ne nekkoo journaliste yow tu te permets de divulguer yoo xamante ne loolu à la base c'est le travail d'un journaliste non xam nga ça euh, j'ai parlé dans un cas général parce que loi là n'existe pas encore xam nga tamit soo toogee yow ci plateau mhm. télé en tant que journaliste euh, bi Euh, en violation de l'éthique et de la déontologie je me dis que loolu jugement de valeur yaakaar naa ni au sein de la corporation des journalistes am na ay organes nga xamante ne mën nañu statuer si loolu parce que aussi nit ki balaa nga koy tuumal il faut mu am élément yu wóor mm-hmm. présomption d'innocence dafa am et je pense qu'aujourd'hui euh, l'argument sécuritaire bi nga invoqué nii pour justifier à mon avis certaines dérives de l'État cet argument là en fait que généralement liberté pour man c'est vrai que dafa war a ànd ak responsabilité mais waruñu ko limiter n'importe comment et aujourd'hui yow journaliste nga euh, monsieur Sam wax na ko sànq aujourd'hui lu ñu constaté c'est les journalistes yi nga xamante ne ils sont euh, présumés wala ils sont apparemment contre le régime ñooñu lañu topp di leen tëj ñu wante dëkk loolu moo am ci dëkk bi donc man je pense que soo nekkee journaliste nga nekk citoyen nga gis ki nga xamante ne mu lay gindi wala mu lay jox information ci réew mi ni muy demee. Mhm. ñu koy téye di ko tëj parce que simplement àndul ak nguur loolu kenn waru ko mën a rafetlu. am na solo.